Talla Samb euh, propos yi mu tenir léegi bokk ci dëkk bi dafa dëkk bi dafay wuyu dafay wuyu turam ndax dañuy suivre rek suñu programme euh, suñu ko xamee woon nii sax damay ne don yi nga xam ne dañ ko tas danoo waroon indi yépp parce que c'est c'est un conteneur dana naroon indi yépp mais il n'est jamais pour bien faire ñun lëkkaloo nañu ak monsieur le maire Talla Samb lëkkaloo ak waa Gaspard Kabara te li mu wax ni duggul si nopp koo xamante ni du dégg ñun fas yéene nañu ànd ak moom ci liggéey bi ndax xam nañ ne jàmbaar la bokk ci dëkk bi dafa dëkk bi sénégalais yi nekk bitim réew ñoom la ñu wax bokk ci dëkk bi ndax Sénégal la ñu bokk ñoom ñooy def lii di remercier ONG médical Mercy bu Canada euh, di remercier toutes les familles ndax ñoom aussi ñoo nekk foofu di def collecte yi ànd kook opito euh, yi nekk foofu di ñu jàppale si don ñun fay ñu dërëm lépp ñoom ñoo koy fay Touré famille yi ñu ngi leen di jaajëfal di wax ne euh, hôpital Gaspard Camara poste de santé gaspar Camara ñu ngi ñu ngi ànd ak maire bi di di ñoŋal maanaam santé bi ndax lii ñuy def nii ñun def nañ ko fu nekk tamit di wax rek ne monsieur le maire jàppal ne say jigéen ñoo nekk ci bokk si dëkk bi defar dëkk bi te lii ñu def fii tey bu dawee ne incha allah dinañ def lu ëpp lii lu ëpp lii dinañ ko def ndax dégg nañu te suñu nopp yi ñuy déggee ay nopp yuy dégg yu baax lañ ay noppi garmi dëgg lañu donc dinañ euh, def leneen loo xamante ni bokkul ak li ñu def xeebuñu ko xeebuñu ko parce que geste n'est jamais petit mais jàpp leen ne monsieur le maire Pala Samb Sénégal war nañu xam li muy liggéey ci goxam war nañ xam li muy liggéey ci goxam donc président de la république laay waxal man na jàpp maire yu mel ne Pala Samb mi nga xamante ni day defar dëkk bi puisque Palla Samb day defar dëkk bi nag ñun waa mouvement bokk ci dëkk bi defar dëkk bi dañuy ànd ak moom defar dëkk bi. ma fekk fi sama rak muy Baye Moussa Samba suñu bàyyi bokk xaw ma woon ne sax moom moo nekk fii ci Gaspard Camara xam naa ne daal médecin la tax ba mu nekkee université nekk étudiant ba ba muy génn xam naa ni médecin la macha allah sama xaalis na laf cat di ko jaale yaayam. parce que bi yaayam gaañoo sama yaay laa hospitalisé woon hôpital mu feebar AVC looloo tax gisante kon merci beaucoup euh, Ngalla euh, Marème Fall jërëjëf ndokk bi ma indee ci trio bi muy Paala Samb Valir Samb Baye Moussa Samba ndax sàmbeen yi nag ture yi sànnuwuma leen xeer mais sàmbeen yi nag ci bokk ci dëkk bi defar dëkk bi lañuy ñuy dox ndax ba ma duggee ci biir bureau madame monsieur le maire fekk fa photo Cheikh Ibra Fall na ñépp màggal loolu Sirane monsieur le maire du point E Pala Samb nii rek la mën a mel ndax ku jël référence def ko Cheikh Ahmadou Bamba def ko maam Cheikh Ibra Fall référence nga barke alxuraanu karim kon mënumaa ñàkk wax madame Touré yow li ma waroon wax yépp sax yow yaa ko wax Touré mais il faut ma wax tey ndax damaa gën a kontaan kontaan bi mooy damaa ñëw fekk fi sama rakk di wax monsieur le maire jàppal ne à partir d'aujourd'hui le mouvement bokk ci dëkk bi defar dëkk bi ak Valir sàmm don bu dugg ci Sénégal dina la laaj kan nga bëgg ñu jox ko gan mën nañ koo wax lu nekk ba mu des xool ak dégg danoo ñëw fii danoo xool danoo dégg te li ñu dégg doy nañu monsieur le maire monsieur le maire jàmbaar mooy yow jàmbaar faq tëdd dëgg mooy yow nga jéggal ma bàjjenu gox bi ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ñun nag mouvement bokk ci dëkk bi defar dëkk bi ma ñëw ci mouvement bokk ci dëkk bi defar dëkk bi créé en 2012 ñuy dox rek si bokk si dëkk bi defar dëkk bi lépp loo xamante ni day defar dëkk bi ñun ñoo ngi si biir lépp lu nekk nag lu ñuy defar ci dëkk bi pour dëkk bi jëm ca kanam ñun ñoo ngi si biir don yi dafa jóge Canada ONG Medical Mercy nekk Canada suñu ay membres yu nekk Canada jàppale ñu nga xam ne chaque année don yi day ñëw don yi dugg na dalal jàmm don yi dugg na hôpital bu Pikine avec le maire Issakha Diop don yi yàgg na di dox dem na ba dugg biir Kaffrine kon don yi ñun moomuñu ko mënuñ ko jaay mënuñ ko def leel ndax dañ ne bokk ci dëkk bi dafa dëkk bi te boo bokkee ci dëkk bi dafa dëkk bi li dëkk bi moom da ko koy jox da ngay jox ak dëkk bi sénégalais yi nekk bitim réew nga xam ne picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf sénégalais yooyu ñooy ay jàmbaar ci sénégalais yooyu mouvement bokk ci dëkk bi dafa dëkk bi dafa am une représentante mu dëkk Italie nekk Ischia ñu koy wax Fatou Bintou Cissé mi ngi na la donc mouvement bi nekk na au niveau de la diaspora nekk ci région de Dakar yépp si commune bii nag nee naa léegi ñi nga xamante ni ñoo bokk ci mouvement bi dëkk si commune bi liggéey leen ak monsieur le maire Pala Samb à partir d'aujourd'hui loo soxla si waa mouvement bokk si dëkk bi dafa dëkk bi ñi nekk ci sa gox woo ma ma def délégation ñu ànd ak ñoom ñëw ànd ak yow ci liggéey bi ndax yow nii da ngay defar di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant délégation bi ma àndal yëpp ndax li duuf ci nag bi yëpp xajul ci bi cin di jaajëfal sama camarade Sele mbay ah madame Touré merci Touré nga sant parce que heure añ jot na maa ngi koy yemale fii di leen euh, jaajëfal yéen ñëpp merci merci tout le